suma jarbaat la maa yaay ma bokk ndey papaam ak sama yaay bokk ndey ci wàllu papaam suma sangal waaye ci wàllu yaayam suma jarbaat la mooy wan moom nekk bokk nekk waalo ba jóge fa nekk lugo ba jóge lugo ñëw ñetti mbaar ñetti mbaar mu jóge fa ñëw fii ci kër yaayam ci marché Seng fi la lukkee ko booba mbappat moo am fi ñuy wax Noflaay booba temps moom Daouda Fall Aliou Fall euh, Alaji Gueye ñoom booba temps da ngay bëre aareel ngoon jot nga ñëw bëri si wan mbappat boobu waa Caaroy Papa euh, ñoom ndaata jàpp euh, Sele ñoom jàpp euh, Jibril Wade ala Jibril Wade ñoom booba caaro du ñu mbër boobu bu ne mboppatoo noof rek bu du sekk yuuxoo rek ànd ak njaay loo du sekk day tëgg bëre ñu daan waa Fass mu futteeku daan ñooñu boobu làmb neexoon na mooy suñ papa Dut Seck. Dut Seck dana ko yàlla xel xel àjjana moom ci hommage yi la bokk sax. waaw. <laughs> ku mënoon way làmb ba way yuuxoo rek foo jaar sa yaram dana daw. ñu continuer dem di bëre dangay ngay bëre aareen ngoon jot nga bëre mbàppat booba temps boo daanee dimanche ba dellu see da ngay jël fukki si rek ñaar takk ren di segg tamay dar leeg ndënd yi nga jëm làmb ji ñu nga yóbbaale ci ay nit rek kenn xam na mu day làmb neexatul léegi donc daf forkorool te làmb forkorool bokk ci làmb léegi neex na am na xaalis si neex bi maanaam bu njëkk ardo amul bëre Balla Gaye ak docteur ku ko fekk fekk bëre Mbaye Guèye ak Souleymane Diaw Double Less Abdou Bakk te ji day sotteeku bu teen ngeen mu daal fa nul bëre lamb léegi million dul jeex ñu laal la benn korpeñ fii médecin bi seet ñu def arrêté combat jox li victoire neex na la gën neex bu njëkk da ngay bëree ba tas boobu kat appui yi amul xawet gàng jël bu leen naññ dégg nga wax cadre appui la def jox jox nañu ko jël loolu loolu bëri Aliou Seye dugg na ci làmba bu bàyyi làmba kenn mosul dégg na Aliou moo yàq làmba ji mosul am premier grand combat Modou Pouye la bëre arène Sénégal booba mbër yi Modou Pouye yëpp Senghor góor mag bala ngay dem grand combat si ñoom ngay jaar làmba ji fa ñu xam ne teel ñi nga xam ne du ñuy wax xat ñu deg leen barrage sa ngay jaar doog dem grand combat. mais mooy combat am nu mu demee woon. combat am bu ñu ko booleeg Modou Pouye premier combat am arrêt Sénégal combat ba yeggul. la boobu Aliou foo jaar jël te Modou Pouye lu moo tax loo gaaw gaaw gaaw fekk ci suuf boobu arda amul. dóor na ko bëñ bi damm bañ Aliou say damm kenn yi xamul ne bëñ bi damm na ñuy bëre ba mag si nii bu ñëwee ci kër gi doo xam ne bëñ bi damm na. mu doo koy dindi. moom ci xayma ñaata combat la bëre. Aliou lu mu bëree bare na ndax Aliou daje naa ko euh, Baara Ndiaye daje naa ko euh, jam si yàlla jë ñaari yoon tubaabu joor daan ko bëreeg Birahim Maxinil. mbay gee boo see bëri wala àll yu ñu ma ko tegal ku mu ci dafa dem ba ñooy mu daan leen du jeex mbay gee lànk nangul bëree moom loo tax seen bëree kiiwul jot na ko te mbër mu ndaw toujours ma wàcc mbër mu mag mbay gee dem mu ñu nekk du yow dërëm ak mën a ànda lànk nangul bëree moom lii moo tax seen amul. man combat moo gën a métti ci combat. boo xam te ne seetaan nga yóbbu ngeen ko combat boo xam te ne métti na ci combat. combat bu gën a metti ci combat ba nga xam ni moom bu gën a metti boobu moom dew ma boobu kawlax la combat ma am njambaan ndax yu ñu yegsi rek toog tuuti rek moor ngeen daw yegsi ñëw rek saa waa ji ba loo ki mun ko ah, man jox na ma léegi laax ma lekk moor moor ngeen wiccax bopp bi jooy ni ba am na kii nga wóolu ba ñëw si moom miin na la mu demee du ñu ko dóor mu daanu koroog moom Ndiabane. lan moo ko gënoon nekk point fort am. Aliou nekkul point fort Aliou remise boo dóoree bala ngay teggi sa loxo mu delloo la ko te fu mu la fëkk bëre ba jeex moom Mbanga bëre na ñetti yoon ñetti yoon dafa daan Mbanga te ramas maxinil mu rasan maxinil ndax Mbanga mbër yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Aliou dong moo ko si jaaxal ndax saa ñuy bëre Robert fa ngay wax. bis boo xeexee mu jël la boo xeexee mu jël la te alcim da ko am yoo tax bis mbaa nga bis bu droite mbaa bi ñëwee si yow mu sotti ndax saa ñuy bëree mbaa nga congi lay lay calcul àll yi paare droite bi moo tax seen bëree dem na ba mujj eh, yàggul waaye dem na ba mujj à fin ay doomu ndey nuñu problème boo am si mbaa nga boo ñëwee si àll boo dewee ci mbaang mu rek la ko ñoom ñaar dem ba mujj na ñoo bokk ndey ak baay sport du noonu Balla Gaye daan na Birahim Ndiaye Birahim Ndiaye dafa daan jógee seen kër fekk Balla Gaye ci usine fu muy toog mu ñëw añ naan ataay nekk bala ma lay bàyyi nga jox ma revanche danga ñam ci xale léegi yi te bu bu tiwuñu si boutique mbër mi daal la nga ñëw këram nekk par force ma jox revanche di lekk di naan amatu fi. léegi ay noonu fi nekk léegi te làmb sport dafa war boole war a warul yàq. ban xale nga gis koo xam ne moom Alioune Seye xaw nañoo nuroo bëri suñu euh, ndem si yàlla per Alioune gis ci làmb ji ne xaw nañoo méngoo bëri. kenn moo nekk si làmb ji bàllu si doon dund ak mam mam Balla Gaye moo ko fi indi muy xale bu ndaw nekk ak Balla Gaye Balla Gaye mu nekk ak moom ñu koy yónni muy dem indi ndox di ñëw nekk fa ba yàlla def la muy def mu bëgg làmba nekk ci làmb lat moo waroon taxaw taxawaayu Aliou Seye Lac waaye cadrement la amul encadrement cadrement mooy lenn dama ne boo Aliou du dund ak mam du deme nii kon ci làmbam si làmbam xam nga làmb danga war jekku ñëw daan nekk mbër waaye am na conseillers nga xam ni boo déggee seen wax boo dem ndax dama ñëw man la yee eh, mosoo daanu boo amee nii baax na fekk lu baaxul am na niil yi xam ne daanoo ko gën fu mbër di yegg yegg na fa taar fa kàll waaye cadrement ba nga xam ñoo ko war teg ci yoon mu dem moom la amul. kon bu ma ak Aliou Seye doon dund làmbam dina dépassé fii. non xam dina dépassé fii mooy dépassé bu mooy. heure bu amee komba bu def entraînement bi daf pare Aliou Seye dana ko kii nii lay bëree defal ma lii bal si nekkee gëmmal yegg somb sax day gëmm dem songa loolu la amatul yow boo demee marché dugg ndugg mu ndugg mu rafet mu neex ñoo jox sa sa sa mbindaan wala sa sa rakk ta mënul togg mais du togg lu baax la dana na am ngemb waaye lu war a yeggale ngemb li loolu la amul amu ko ba tey amuko ko ko te ñu ko ñu ko dal ñoo xamul làmba. ñu ko dar ñoo xamul ñu ko dar ñoo xamul position làmba xamuñu ko xam nga làmba ñaar la am na nga xam ne moom na ñëw sol blouson bokk si tuus mi ñu gis ko am na nga xam ne dina ñëw rek moom fexe na wane joxe gàllaaj ñu diw mooy jox diw gàllaaj mbër foog nga am mbër mi ànd mbër mi war nga xam mbër mii tey jàpp nañu ko wala jàppuñu ko koy war nga xam lu yàq la lu yàq euh, gàllaaju mbër bu ñu jekk ko sa mbër léegi la koy tojal war nga ko xam bu ñu defee benn cong ñu at leen war nga xam yow tey sa mbër nan la war bëree am na combat yi nga xam ne xeex moo la see génne am na combat yi nga xam ne bëree moo la see génne sa mag wax naa ko ko ñaari yoon ma wax ko ko ñaari yoon yëpp day day am ba yàlla si numéro 2 bu ñu tase fii muy waxtu di génn man ma père ma nekk ma da ñaar rek laa la jàppe boo daanul ikar wala daanu na benn Alioune di sama jarbaat lenq ba naa mën naa ñu nga tudd sa bopp Alioune laa la jàppee waaye ji tey bëre tey bii yàgg lan 2000 boo indee bëre ñàkk bëre dul ci génn de dëgg di sa tànk duma ko mu ñëw nga daan ko waaye boo indee bëre doo ko daan defu ko lu si jële bëre la indi ñu jëm suuf mu mu mu mu mbocc ko dënd ba ñu laal na suuf jox ko jël la. mais est-ce que maa ngi ñëw ñu mm-hmm. jege te moom Komba ak Moussa Ndoyeeti. moom Alioune Seye 2 moom Alioune Seye 2 ñu dajeeti même watukaayeti yàlla di tombeeti mu ne ma ne ko bëre tey bi du bëre dan la wax ci xeex waaye du dëgg si moom si yéen yi la jëm si. da lay fëkk si dina tànk nekku si suuf ba dëgg la waaye amul conseil. moom Alioune Seye dafa war génn par force waaye amul conseil. mu dem Moussa Ndoye dafa koy yanu dafa koy xeboo ci xemal mu fekk ko te lu gën bon ci làmba mooy comme mbër yuy génn di dem ñaari mbër yuy génn di dem foofu mooy komba kom si diggante saa kees ak Boy Niang wax naa ko ma ne lees na ko ñoo ngi doog am komba man leen saa kees ñu mu doon bëreel ñëpp mi ngi doog am komba tey combat ba dafa yomb boo ñëw butéel boo ma yoroon di def nii dara nekku si lamb politique la lamb dara nekku si bu muy def nii di gis noonu boo mu ngi sofe waa ji booba lees gisatul saa ki ki ki nu mu tuddati ke gisatul mu ngi yàkkamti yàkkamti waa ji ñëw waaye tii bidon bi def noonu la ñu xam ni waa ji safe na wala safe ñu teg seen bidon dafa ñëw mu xëpp si kawam lamb galaaje ngi si waaye politique moo si nekk Aliou combat bi wax naa ko si tudd Youssou ma ne ko da nga ànd wala ñu xam làmb combat bi waroon xeex combat bi da ko moom waaye da nga ko yàq na ñoo xamul làmb xëppal na la affaire bi ñu galaaj rek gi sa fit lépp la sa galaaj gi def kii papam def na ko bëri ma Ambara Sarr Aliou Seye liggéey ba jàkku wër ñëw daan séeréer yi xam ñuy def ñu def dagg benn xobu démb rek cer ni ko fexere ba laal la ko ba mu ko laalee làmb ji yàqu làmb politique moo si nekk mais tey écrit waale bu la ñëwoon bu ñëwoon woo la est que pare nga pour ànd ak xam nga man làmb. parce yow làmb xam làmb te gis nañu yow da nga ñoom su ma dafa am problème encadrement moom moo leen manqué. waaw xam nga encadrement mooy sa entraîneur ba la yor war na xam ne mbërëm ngay bëree mi tey am na bëri yoo xam ne xeex moo la see génnee xeex boo xeexul doo am combat bi am na combat yoo xam ne bëri moo la see génnee waaw bu fekkee ki nga àndal ji xamuñu lu see génne ci làmb ji foo jëm. mais écrit bu ñu la woowee pare nga pour xam nga nit ki dafa la xam ne dama dama dafa ma dal si écrit waalo moo tax léegi mu bàyyi écrit waalo. mais ba mu juddoo ba day nii dama ne la du Balla Gaye du Alioune Seye du Alioune Fall du Daoudou Fall amul combat amul amul lu ma defal ci làmb te koy ànd ak mbër te bàyyi woo boo dee da ngay lakk ndax lu nekk galaaj bu nekk yaa koy def mbër dafa dafa doy waar. boo dégg ma écrit waalo la mu ci mooy. dem si am ñaari problème problème mooy sa mag Aliou Seye ne dafa am combat ak ndëf Aliou Seye gaañoo ba Aliou Seye gaañoo garçon di ko dawloo guddee bëccëg guddee bëccëg ku see wax di wax di wax bu combat ba taxaw xaw ma dara mënuma dara waaye kon bu ma ànd ak moom yàlla may nañu ndam sonn naa si loolu yàlla may nañu ndam li si li si des yi moom duma ko wax ñu jàll. déedéet ndax man dama toppul nit alal man la ma soxla rek walla daan na daan na waaye ni keew bu lay sonnal ba nga am ndam am leneen bu doon bu doon juróomi dërëm sax war nga ne ko am raxasoo lu ñu mu jox na xëy na ñooñu ñooñu la gëm ñu bàyyi man. Aliou Cissé la mu ko wax lii waxuma ko benn mbër julli nañu Touba ma dem fa julli jumaa ji nekk ni sama gannaaw mu génn mën ma kii mu ko ah, bàyyi sama mbubb waaye nekk na jaayam la àndal ñu taxaw si benn euh, euh, biis ma nekk làmba ji sareet sax góob nga am ko si tey danga war am 4-4 na ñëpp. tax nga loolu. tax wax góor bu ko fekkoon mu toog papaam ak yaayam saaga saaga sa kër ga dana génn te mu nekk fa. làmb ñu toll fa nga xam ne lu ma nekk dafa làmb ja xam ne rayante moo la fay jëlee ak ñu xam làmb làmb négocié moo amul ana bari nga xam ne nga leen di duma daan leen ana mbëri nga xam ne boo xeex ñu daan la bëri nga leen jàpp daan leen moo ak lat kenn leen nekk mbër waaye seen cadrement moo des moo des jamono léegi bi nag pour ñu naw la foog nga gaare 4-4 ak ah, sa grand mbubb dindi sa téléphone ñu woo la alo alo allo allo ñoo ñu gëm c'est-à-dire kon ndax tey jii am na xam ne ku si amul tey te loo ko wax lag combat euh, kii baabooy bu ñuy ñëwee toog ak papaam ma ne kon day am na fa Aliou daan dem xam naa ko am na xam ne xaw ma ko léegi nag moo taxoon ñuy ñëw man ak ma mbay ku bëgg ma mbay moo tax ku bëgg làmb di sonn si ñoom alalam da kay dindi ay millions la di def ci làmb pour waa la daan bu ñuy ñëwee yegg si Mamed Àllu mu ñu ñëw papam ni Lat ba amee combat ngeen ñëw si man du ma ko wax day nekk seen combat la jox ñu ñu kon për kii ñu nekk di dem di dem di dem di dem ba ñëw Ali woo ma ni ma léegi benn gàllaaj léegi dootu fi ñëw te jaarul si man mu Mohamed Ali waaw mun benn gàllaaj dootu ñëw léegi yëpp moo ko seere foofu mun gis naa sama bopp ma mbay na Père Mouhamed Ali mooy benn gàllaaj bu ñëw. sans si loxoom la jaar. te fekk dox ñu combat bi léegi def galaaj yi bu mu des lu mat juróomi fan. boobu na Père Alioune Seye génn na àddina moo moo Baboy Aliou moo ñëw ni comme que Alioune Seye génn na àddina il faut ñu takkuwaat jàppale xale yi lii moom si dugalaat tamit léegi ñu dem ma bañ ne ma jaru ko ma jël galaaj yi Moussa Seye defaroon. ma jox góor a nekk yi ñu koy sëf lii ni ñu koy def jox ko galaaj yi mu defar mu dem si papa yi góor ne ko kenn jële benn galaaj te ñëwuma père Adi wax loolu waaw wax loolu ñu toog ba 10 heures mu mu ñëw si man ne ma dimbali ma nga dem nga jëlee galaaj yi bu la waxee nga dama dem dama dem Tamba ma ne ko déedéet man du ma fen ba ma yeggee naa ne yaa ma yónni mën naa di portable bi jox la nga nga moom mun maa mu ne ma waaw ba ma ñëw si paa bi wax ko ko paa bi galaaj gi jox ñu butéel boobu booy bëree may mujj si sa yaram bu dee booy bëree ma ne ko ana butéel bi moom a jaxase naa lépp si CO bi. Euh, oh, waaw yàlla dimbali ñu am ndam ñu bisi boo engagé mbër boo gaañoo restant ba si sa kër yow milancière bi restant bu woon si ndóof ak àll si numéro 2 boobu dañu ko lekk ñëwul. lat dafa bëree baabooy sa ëllëg suñu um koor mu ne ma père na ngi fi ñëw ba ma ñëwee fekk ñu wax ak yi foofu ma fekk la ñu toog nii mu nuyu leen ko ne ma jox loxo papa doo ko jox loxo dafa dama ne ko nii dama ni këj. kon waaw kon ñàkkul lu ñu ko wax ma daal di bàyyi daal di toog yàggul dara la du woo ma ma ñëw mun ma père man la ma waxoon li dama ne kon boo tee ba daan. am na ku nekk Sandaga wala ku nekk Caaroy xam nga luy luy honneur am si yow nga ñëw si buntu maa nga seem taxaw mbërëm ñëw na daa fa jële la nga xam ni boo ko calculé bi ngay bëree loolu nga fay li sax loolu ko ëpp mun wax dëgg amoon naa fa xaalis ak fi woon frigo yi mu fa am yëpp waaye jox naa gars yi jox ñi di cinq mille francs jox ma ma ne ko man la ma soxla rek mooy comme yàlla may nu ñu ndam rek mi mel ne un million daa de pare ay mbër buy bëree waxu la man buy bokk ndey bàyyi nga bëri dugg la ma sa ngemb du ma si dugg mbër moo fiir. ah dépp loolu après contacté foo nu ñu mujj gisee. koroog booba ñu mujj gisee am na combat yi nga xam da koy am yaayu kii doo mbaay mi fen combat mag a Morlo dama leen Morlo bu daanul la lat du ko daan. Modou Lo waaw seen premier bëre man leen la a ëpp doole waaye contact bu war a def mu Morlo ñu mu àndal du ñu ko ko teg du ñu ko ko teg mukk Morlo kenn lay bëreel téeméeri jël du ko daan muy Balla Gaye Mor Lo doo ko bàyyi mu toog di kalkin Mor Lo boo ko ñemewul doo ko daan mu jëgat fi mu am combat ak euh, Amet Seen maam si la ma si metti trop jàpp bu la dugal waxuñu doo si man dem. mais daal instant bi tey waa écurie Walo la woowaatee nga dem taxaw kon taxaw père Alioune parce que tamit li nga wax ni wax dëgg yàlla macha allah te tamit yow dafa mel ni kii père Alioune tamit yow xamoon nga fa xoolal di question boobu mhm. gis nga deewu dafa mel na dafa mel na bëccëg ci góor dafa mel na bëccëg ndax dañuy ñu toog nii tàkkusaan bor cinq góor a génn portefeuille am teg du xotti ak dentité bi la teg nii pièce yëpp mu xotti ko daal di koy sànni lu ko wax góor yow lii nga def nag mu ne boo boo amee loox jógal daa mi saf ngàdd waaw ma for kayit yëpp for for for for for yaay kii ne waaw góor moo ko def ci mbalit mi moo for def ko ci mbalit mi munuñu duñu ma woo mu leen woo per góor men waaw te mu nekk écurwaal te mu mhm. ma woo dootu leen woo ba waa écur bi la ñuy war dem ndar demaguñu ok dégg la wax li ajuma ci ngoon la génne portefeuille bi teg dindi lissance bi ak danteem teg nee kotti kayit yi sànni. wóorul nii def nii mu ne ko boo daan tappaleet daa dem daa dem salle ba entraînement ali ne ko damaa wéerul antal yaay bàlla ngeen ne ko góor a bàyyi ko mun sama ndey génn si kii du ñu ànd dem ba dee ñëwee ma de mu de waaye dana dem koro bu ñu ñëw di dem yàlla lu mu la boolewul doo ci bokk bu ñu ñëwee ñu génn kii mu dugg ci toilette bi yàgg fa lool moom Aliou jarbaat bi Mansoor góor mun ko an sam na yaay mun ko sam na yaay ngi ci toilette bi ko day tappale waaye dana dem bu doon dem di dee dana dem dugg ci ba police man ma wàcc jëm sama kër da ma daga ragal da ji ma ne dama demul mam daal di dem yeey Cheikh Cheikh waaw Cheikh bu benn Cheikh bi ko dafa dafa demoo moo tam ah, Cheikh bu ma yeey Cheikh ñaari Cheikh nañu ñoom ñëpp gën a doon ñu mujj a gaañu kii loo see dam moon ci ndigg li mu woo Cheikh ni ko dañuy dem ndar jox ko 2000 francs dëkk nga bàyyi sa kër ñu dem yaay ennemis yi wote yooyu ñu ñëw bu ñëwee police commissaire bi génn doxa àll yu góor a ko jaru nga kay wax ak moom da ngay dem ndar boo doon dee da ngay dem ndar kon père góor moom tax euh, père Alioune Seye dem waaw ko da dem ni da xaritam ku nekk tudd sa morom te moom mm-hmm. moo ko waxoon bis boo dee ma dee boo ba dee ñëw moom mooy jëkk dee àll yi dee faf yàlla def na ñoom ñaar ñu génnandoo àdduna. te moom moom lu mu ko waxoon moom noonu la amee ñoom bu ñu déparé ñoom man ma jëm géejawaay Aliou toogul woon ci kanam Aliou bang bi ci gannaaw chauffeur bi ci la toog mu doomu mu euh, Cheikh doomu Moussa Seye moo nekk ci kanam jënd banaana mu jënd banaana jox Aliou si gaa ni koy da ngay neexal père bañ mu wàccee la Aliou si li man fii sax baax na man ñoom ñu dem. ñoom oto lan lañ leen jëlaloon. Ndiaga Ndiaye li ñu jëloon. pour écurie bi la. waaw pour écurie pour dem bëri ji ndar. ok. léegi nag dafa pëtax banque bu mu toogoon moo suru surux si suuf. ok bu léegi jarbaat bi man soor doon ko dimbali pour génne na jaaje yooyu sabment bi tagu si biir bi. léegi maam moom fu mu tëddoon kirij boobu dañ gën a yëkkatee kirij bi ne moo fekk fekk maam moom fu mu tëddoon waxtu bi feesul waaye dafa tëddoon dañ gën ñu samp fii. góor a moo nekkoon ci kanam ak Moussa Seye kii dee kii loo si dam léegi bu ñu ci ñu jël nag tëral leen. ñoom ñëpp tëral leen Aliou euh, Mam ñoom gaañu nañu ñaar ñee kii loo see dam kii ndigg li euh, rokolat ji moo tam tànk bi moo am problème si lay jëloon euh, ki liiru jaan tëral ko yaakaar dafa dee sax bu pompier yi ñëwee ba jël nit ñi ni ñu xam ne deewul yooyu gis naa dee gu nekk gu ma siital boobu moo dem nañu fa ma tëdd fi nekk dee gi am na bu ñu wax waa koñ bi kër gi fees dell ma yëguma si dara maa ngi suma nekk ndey Fall daal ma téléphone benn ku dëkk sa koñ bi benn géew laa ne ma tonton Omar foo nekk ma ne ko maa ngi fii suma kër mun naa yi du gis ñu la ma ne ko lu xew mun xamoo lu xew ma ne lan la mu daal si ñoom dee nañu bu loolu tuba ji ndaw ji ma sol daw naa génn taxaw ci digg kër gi bu di ma lan la lan la lan la lan la mun munu maa wax waaye nag boo gis rek lu bees rek waaye lu nekk bis bu nekk yàlla wane leneen daal waaye bisu koro boobu kenn du ko fàtte